asalaamaaleykum sunu mbokku internet yu TMS TV ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen jox seen wàccuwaay nu mu gën a kawe di leen jaajëfal saa sune ne ci kóolute gi ngeen am ci seen seen bi nga xamante ne moo feeñeen li nëbb di la TMS TV tey nag le 12 ñëpp xam na ni mooy anticiper filo yi. ñu ñëw nag fii si LPA 3 nekk ci Unité 14 ci Parcelles Assainies pour taataanal leen rek xibaar yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee fii ci école bi ci xale yi tamit nan leen trouver épreuve yi ba xam abordable na ak mbas mi nga xamante ne moo ci am gàllankoor leen ba xam du jouer ci notes yi nga xamante ne war nañ koo am ci anticiper filo yi ñu dem ak yéen rek taataanal leen yooyu xibaar. épreuve yi abordable na de. Hmm. waaw même ci contexte corona sax mais c'était abordable en tout cas. c'était abordable ñaata sujet leen jox. trois. 3. Mhm. Ah, lan ngay wax correcteur yi ak contexte bi nga xamante ne si ngeen amalee yi de épreuve. ah dañ leen di wax rek ñu xaw a indulgent rek mhm. dañuy comprendre tamit euh, defuñ domaine yëpp approfondir euh, domaine yi tamit. Mhm. mais on a fait de notre mieux daal. Ah. ils n'ont qu'à rek. Ah. am na yenn kii yoo xamante ne programme yoo xamante ne àggale leen ko mbaa bokkul si sujet yi nga xamante ne. jox nañ leen bi. Mm. aar moo ci génn te. ñu defuñu ko woon classe. am na yeneen épreuve yoo xam ne mu ngi leen di xaar à part philo bi looy wax sa mbokku élèves yi. ah ñu gën a lii rek ñu gën a jàng rek. Mhm. de façon il faut anticiper rek. Ah. bu ñu xaar profit. Ah. waaw sinon mën nañ dem ba ñu jox ñu loo xam jànguñu ko woon. sa kàddu gu mujj rek. ah may wetee bonne chance à tous les candidats Sénégal rek yàlla baax na lañ ñaan rek gën a jàng rek. c'est le travail pay. oui ak contexte coronavirus bi nii. Mhm. Euh, gis nañ ni euh, si si ils sont euh, très abordables quoi. Mhm. ñetti sujet la te sujet yëpp abordable la. Mm, abordable na mhm. léegi nag li des ci épreuve yi lan ngay wax professeurs yi ak ñi nga xamante ne ñooy correcteurs yi ak contexte bi nga wax léegi ci Covid 19 bi. waaw xanaa rek di leen rek wax euh, pour ni ñu dawal si tuur yi yërmande quoi xam ne ak corona bi nii ak jeexal jeexaluñ programme yi. Mhm. xam nga daa am lu bëri loo xam ne dafa des. Mhm. xam nga instant yi nañ xam dimbali élèves yi quoi. Mhm. buñ sévéral les corrections. nañ ko wàccee pour ñëpp am. waaw est-ce que ndimbal boobu du répercuter si seen jàng soit ñu ngi leen di ñaanal ngeen jàll dem université mais est-ce que buñ ci dawalee yërmande du wàcce niveau élèves yi. waaw loolu nga mënul ñàkk moom mm. ndax jeexaluñu programme yi mm-hmm. waaw loolu moom mënul ñàkk foog foog tamit mu euh, reflété wu si niveau élève yi si mm-hmm. année yii di ñëw ak tamit euh, yu gis toog foog euh, di te tamit woo le chef de l'État monsieur Macky Sall. Mm-hmm. pour loolu tamit mu bàyyi ci xel bu baax. mu bàyyi ci xel bu baax gisoo ni tamit leçon yooyu noonu nga xamante ne dindi nañ ko. ah ak yi nga xamante ne nee nga eggale woo leen ko ku nga xamante ne nag uh, ci matière yooyu la bëgg a sukkandiku pour def uh, les enseignement supérieur loolu noo ko jàngatee est-ce que du doon loo xamante ne day indi faiblesse. oui loolu day doon lu indi faiblesse. Mhm. trop sax. Mhm. oui day pénaliser élèves bi trop. sa kàddu gu mujj rek ak lan ngay dénk sa moroom élèves yi nga xamante ne yeneen épreuve ñu ngi leen di xaar. waaw euh, sama kàddu bu mujj mooy euh, di leen euh, gën a rek ñaax quoi. Mm-hmm. di leen gën a soññaat pour buñ bàyyi seen loxo. Mm-hmm. nañ dem réviser le passé c'est le passé. Mm-hmm. lii ñu jot a def instant yi nañ ko teg si ginaaw te ñu xool lii di ñëw. muy mat yeeg PC yi ak tamit histoire yooyu yooyu noonu quoi man loolu laa di conseiller. salaamaaleykum sëñ bi. Jong. tur beeg sant bi. Serigne Falilou Jong. centre bi. Euh, euh, lycée LPA unité unité 13. unité 13. oui ah, dañu bëggoon a xam ñaata candidats ñoom ñoo nekk fii tey ci centre bi. waaw pour candidats yi nombre bi 423 euh, inscrits la. Mhm. waaw 423 inscrits ñaari série ñoo fi nekk nag série s ak série S2. ak série S1 pour série s bi 23 candidats la pour série s bi. 400 candidats la donc boo xoolee total bi donc day nekk 423 candidats ñu inscrire. ñu inscrire waaw. waaw gis nañ ci ñoo xamante ne ñëwuñu am na ay absents. bon am na quelques absents y' a y' a y' a 6 absents. y' a 6 absents waaw y' a 6 parce mhm. que en fait y' a 418 présents. y' a 418 voilà 418 présents ñoo am donc am na si si 6 6 yoo xam ne ñoom jotuñu ñëw tey. jotuñu ñëw ñooñu xam nañ li tax ñëwuñu wala. bon am na kan am na koo xam moom dafa ñëwoon dafa ñëw mais dafa feebar. Mhm. waaw kooku moom jot na ñëw fii présenté wu tey suba. Mhm. Euh, bi ñu commencé épreuve yi. Mhm. indi ay papiers justificatifs. mais ñeneen yeneen ñeneen ñi moom jotuñu jotuñu ñëw. Ah, jotuñu leen gis yeneen yeneen juróom yi daal. yeneen juróom yi jotuñu leen gis. jotuñu leen gis. déedéet waaw gis nañ ni ren contexte bi dafa xaw a particulier. Mhm. mu ànd ak mbas mi. yan kii ngeen jël yan matuwaay pour xeex mbas mi nga xamante ne mi ngi gën a yokk nombre de cas ak nombre de décès. waaw bon man bi ma ñëwee ba dugg centre bi gis naa ne disposition nécessaire yi ministère bi waxoon yëpp. Mhm. jël leen ko. parce que mhm. ba may dugg ci centre bi jël neen sama température. Mhm. par thermoflash. Mhm. am na aussi système de lavage des des mains. bi ma ñëwee aussi j'ai fait le tour de des des classes. bi ma defee tour de classes aussi. gis naa ne euh, élève bu nekk euh, benn élève par table banc la. donc gis naa ne la distanciation physique bi doon wax. respecté nañ ko quoi. Hmm. fii ñu nekk aussi boo xoolee ñun avec mes secrétaires yi. Hmm. so boo xoolee ku nekk côté am la toog. Hmm. def liggéeyam nu mu waree quoi donc boo xoolee daal mesure barrière yi ñu waxoon. Euh, pour l'organisation du baccalauréat gis naa ne bon respecté ko quand même ci centre bi daal. gis nañ tamit euh, bu ñuy dugg si gis nañ ay. takk der yoo xamante ne ñu ngi fi daal. Mhm. Euh, côté sécurité nan la demee ba xam gëstoo leen ci ay jafe-jafe. waa côté sécurité bi aussi ma ñëwee fekk naa leen fi teel leen ñëw. Mhm. macha allah amuñu fi benn problème amagul benn incident bu ñu bu ñu signalé. Mhm. ñoom gis nga am na ñoo xam ne ci porte bi. am na ñoo xam aussi ñoo xam ne ñu ngi fii ci kanamu. Euh, bureau bi. di veiller à la sécurité donc pour l' instant amuñu benn problème on a aucun problème. waaw ah, gis nañ tamit euh, ren. xale yi dañoo jàng même pas deux mois mhm. ñu gis ni ñu ñëw def anticiper filo te am na mhm. yeneen épreuve yoo xamante ne mhm. mu ngi leen di xaar seen si seen kanam léegi kii yooyu nga programme yooyu nga xamante ne jotuñu koo def est-ce que tenir nañ si compte ñi nga xamante ne ñoo ko doon génne waaw boo xoolee bi covid bi amee après bi ñuy reprendre quand même on a réajusté les programmes sauf peut-être en, en mathématiques la amul réajustement quoi parce que prof fi peut-être progression yi bokkul woon mm-hmm. mais dans toutes les autres matières danoo wàññi programme bi mm-hmm. waaw am na chapitre yoo xam ne euh, dindi neen ko parce que xam ne avec deux mois peut-être mënuñu def chapitre yëpp mm-hmm. donc am na chapitre yoo xam ne dindi neen ko voilà looloo permettre quand même prof ñu mën a terminer seen programme à temps. Mm-hmm. est que tamit programme yooyu nga xamante ne dindi nañ ko du répercuter ci enseignement supérieur bi nga xam ne mooy xaar élèves yi parce que après loolu bac ñu bëri dañuy tege ne bag boo ko amee rek jàng bi jeex na te boo ko boo amee bac rek ci la jàng bi di doog a commencer est-ce que loolu du jouer ci niveau xale yi. waaw loolu moom loolu moom loolu moom c'est clair que dina am ay conséquences. Mm-hmm. waaw dina am ay conséquences moom mais moo ko moo ko laaj. Mm-hmm. mais quand parce que bu ñu sañoon quand même élèves bu ñuy dem bac dañuy terminer seen programme. Mm-hmm. def seen programme ba mu jeex tàkk. Mm-hmm. dem def bac mais comme situation moo ko laaj neuf mois yi ñu waroon jàng jotuñu ko jàng. bon loolu tamit boo xoolee dina am quand comme ni nga ko waxee dina am ay répercussions seen seen étude supérieure. Mm-hmm. waaw loolu lu lu wër la moom. lu wër la waaw. léegi nag ñu bëgg rek nga jox ni li nga xamante ne moom ngay dénk élèves yi nga xamante ne épreuve yaa ngi ñëw parce que tey philo la. Mm-hmm. mais am na leneen loo xamante ne moo leen di xaar ci wàllum révision ak wàllum leneen. Mm-hmm. waaw li ma leen di ñaax rek mooy ñuy jàng parce que examen bi li ci des bëreetul. 15 jours moo ci des donc 15 jours yi des. nan nan jàng daal jàng bu baax a baax sérieusement réviser seen leçon. Mm-hmm. bañ a am benn préoccupation bu dul jàng. Mm-hmm. man loolu laa leen di ñaax. Mm-hmm. waaw ah, sa kàddu gu mujj rek ak lan ngay tàggoo. waaw sama kàdd gu mujj maa ngi rafetlu seen ñëw fii. vraiment di leen remercier di euh, remercier aussi euh, ñi ma fekk fii. parce que quand am na na accueil chaleureux. secrétaire yi may liggéeyandoo président jury bi ak censeur bi jàppale leen ma bu baax ci liggéey bi. Mhm. parce que man xaw ma fi maa ngi ñëw ñëw soog ñëw ci centre bi. Mhm. mais vraiment liggéey bi rafet na trop. macha allah série S1. Mhm. et S2. Euh, jury 1341 avec 423 candidats. 423 dispatchés dans 15 salles. léegi candidat yooyu nag gis nañ ni ren dafa am benn contexte bu particulier dafa ànd ak mbas mi ñu bëggoon a xam yan précaution nga jël lekk ci accueillir leen waaw mooy précaution yi ñu jëloon rek bi ñuy commencé bi ñuy def deuxième reprise ou troisième je sais plus mm -hmm. euh, à partir du 25 juin si ne m'abuse mm alors boobu état bi dafa mettre en place benn protocole sanitaire mm-hmm. alors moom la ñuy appliquer boobu ba léegi te defe naa ni xaw nañ si roode tuuti. Mm-hmm. mooy flasher nit ñi bu ñuy dugg ci biir lycée bi. Mm-hmm. mais aussi euh, tegal leen ay lavoir ñu raxasu ak saabu ko tool ba set après euh, ñu dem ci salle yi ñu jox leen gel mm-hmm. ñu def seen loxo ba mu tooy dem toog seen place te benn élève par table et dans chaque salle il y a à peu près moins de trente élèves mm-hmm. moins de trente élèves euh, pour l'examen du bac bien entendu mais avant c'était entre vingt et vingt-cinq élèves mm-hmm. voilà et puis tout se passe très bien parce que fi mu nekk nii moom mën nañu wax ni on a démarré à l'heure mm -hmm. les surveillants étaient en place dans chaque salle quasiment il y a entre deux trois et quatre surveillants. Hein? Et donc euh, tout est en place. Et les l'anticipé de Chiro se déroule normalement. se déroule normalement. xam nañu tamit bu ñu defee anticiper filo yeneen épreuve ñu ngi leen di xaar yooyu mesure ngeen jël moom ngeen di jëlaat rek nga xamante ne moom moo def ci épreuve bu bag yi. tout à fait parce que fi mu nekk nii mettre nañu en place le dispositif depuis. avec les enseignements apprentissage. L'anticipé des philo, c'est le même dispositif kon a reconduit et euh, à partir du 2 euh, septembre, pour le bac général, c'est le même dispositif qu'on va aussi mettre en place. mu nekk tamit contexte boo xamante ne am na yenn xale yoo xamante ne ñu ngi naan programme bi àggul loolu est-ce que du jouer tamit ci résultat yi nga xamante ne moom la ñu war a génne après bac bi. bon loolu nag lu ñëwagul la <laughs> lu ñëwagul moom kenn mënu si prononcé parce que ça dépendra de beaucoup de facteurs mm-hmm. parce que déjà euh, c'est vrai on parle de programme mais mm-hmm. euh, programme bi élagué nañ si lu bëree bëri bëri wàññi nañ si lu bëri te tamit profit euh, sorewoon woon nañu mm-hmm. ñun par exemple bi ñuy bi ñuy def euh, bi ñuy suspendre enseignement yi fekk na ñun on avait programmé le premier devoir du second semestre Voilà, donc mmh. premier devoir du second semestre. Cela veut dire qu'on avait quasiment terminé avec le premier semestre. Mm-hmm. Voilà, entamé le second semestre, puis programmer un devoir, mmh. et puis voilà, nous suspendre les cours, les enseignements. Mm-hmm. Léegi, lorsque qu'on est revenu, mm-hmm. avec les réajustements, les réajustements de programmes il est évident que peut-être on ne pourra pas terminer, mais l'essentiel des programmes dañ ko def. waaw essentiel moom dinañ ko def. kon loolu daal ce qui fait que ce euh, qui problème mu examen moom c' une autre réalité. Mhm. parce que mun nga ñëw li nga def ci programme ça dépend des sujets qui vont sortir. Mhm. te en réalité bon sur trois sujets je crois que élève bi am na chance su def un bon choix. un mhm. choix judicieux vraiment. en rapport avec moom li mu jàng ak li mu xam. voilà parce que euh, sujet bi dina porter sur beaucoup de domaines. voilà a partir de cet instant je crois que nit bi am na chance pour mun a choisir li nga xam ne war na ko mun a def. voilà donc sur ce plan moom il y a pas et puis aussi bon euh, examen daal examen la. que année bi normal que année bi bañ normal. examen c' est une autre réalité. waaw kon mën nañ na jàpp ni daal mbas mi du prétexte daal na xale yi jàngaat gën a réviser xaaraat yeneen épreuve yi def ci seen fulla ak seen jom. tout à fait tout à fait parce que euh, pré choisir jël benn prétexte moom dafay yomb trop. Mhm. mais bac de tout temps. Mhm. élève bi koy am mooy élève bi nga xam ni il est moyen il suit ses régulièrement. quelle que soit la situation qui peut prévoir mm-hmm. kooku bu demee examen war na mun a am bac mm-hmm. léegi nag am na ñi nga xam ni dañu am bac ak mention mm-hmm. ñooñu c'est d'excellents élèves am ñi nga xam ni deuxième tour la ñu am peut-être que ils se sont très mal réveillés wala le sujet qu'ils ont choisi ils l'ont relativement Euh, bien abordé. Et puis la correction est donc, mhm. on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc il y a tellement de réalités qui font que munoo présager de rien du tout. Mhm. mais danga nga naan ni rek année bu normal ak bu bañ normal eh, examen moom réalité boppam la am na nga ko préparer na nga ko war préparer. Mhm. cest à diir nga jàng nga jàng suivre tes cours et puis ñëw présenter wu et puis dans des conditions. assez acceptable. à ce moment-là tu as des de réussir. Mm-hmm. léegi sa kàddu ko mujj rek ak lan ngay dénk candidat yi nga xamante ne ñoo fi ñëw tey. waaw euh, di leen wax ni nañu nañu am sérénité rek. Mm-hmm. xam ni moom euh, kenn du choisir sa destin. Mm-hmm. waaye lépp lu mënti am nit na am taxawaay. parce que taxawaay mooy li gën a wér ci àdduna. taxawaay mooy ay nit lañu borom xel lañu am na lu ñu lu ñu war nañ ko def bu boobaa dañuy quitte avec notre conscience lépp luy am nag après mm-hmm. yàlla moo koy dogal waaw incha